nekk ci commune Wakhinane Nimzatt Ndiobène nekk na quartier bu flottant bari ay jafe-jafe askan wi nag ñu ngi ñu ngi daw ci ginnaaw autorité yi ngir rek ñu am li nga xamante ne moo di titre foncier collectif. fii cat ba cat amul benn kër bu ci am kayit déposé woon nañ kayit yi mais ñi ci génnele mooy ñi nga xamante ne jege nañ xaw na nañoo jege mairie bi. lii nag moom état lañ ciy waxal état na ci ñëw jàpp. nguur gi ñëw jàpp ci lii jeex géejawaay ñoom nag ñu ngi jànkonteel yeneen jafe-jafe bokk na li nga xamante ne moo di mbirum démolition waxambaane bi nag moom xam na ci dara damay wax mu constaté ko ma def sama plainte jébbal ko waa Descos parce que fii yëpp ku fii tabax da dem arrangé ñu ne la tabaxal kenn amoo ci autorisation de construire waaye problème bi yemu ca mën a jël benn terrain jaay ko 10 personnes ñu ñëw ku nekk di mool kii di tabax kii di fondement kii di daane te mën na ñàkk. askan wi fi yeewoo ñoom nag nelawtuñu noonu ndax ñàkkum kaaraange ñoom sax ñu ngi jooy li nga xamante ne moo di mbirum canalisation ak yeneen.